Marc Tendeng maa ngi lay nuyu. ngay sant bu baax baax. voilà Marc Tendeng nga jiite euh, syndicat bi di union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk c'est septembre bi euh, ñuy màggal bës bu ñuy jagleel wàllum transport public naka nga gisee bés bi. waaw loolu daal ñu ngi koy rafetlu déjà parce que màggal euh, lu toll ni bésum transport loolu mbégte la ci ñun li nga xam ne dañuy yëngu ci mbirum transport. mais traditionnellement ici au Sénégal euh, daañu ñu gis sax euh, donc ñu ñu ñu jël journée boobu war warmal ko jox ko gëdd bi nga xam ne moom la war a am ñu koy màggal un peu partout donc souvent on est réunis par les acteurs du transport pour vraiment parler de cette journée ñun à Dakar Dem Dikk plus particulièrement on ne célèbre jamais plus pratiquement dafa nekk jour boo xam ne euh, dañ ci waroon mooy pour mën ci wax suñu doléance suñu jafe-jafe état mën ñu dégg mais malheureusement nekkul mais c'est une journée importante quand même parce que transport dafa nekk loo xam ne euh, dafa baax ci réew day tax euh, réew mi comme koomam dëgër nit ñi di mën di dem di liggéey di ñëw di dox ci seen euh, commerce ak yooyu donc dafa bokk loo xam ne daal levier bu important la bi nga xam ne état yëpp moom la ñuy sukkandiku pour mën a sukkali seen réew parce que transport mooy mën a permettre nit ñi daal ñu mën di dem ak di dikk. ci mu ku nekk ba mën dem di ko mën a développer sa activité ci boor boo mën a gis daal. Euh, est-ce que yéen bés bi di ngeen ko màggal marque fii ci Sénégal ñu yëngatu ci wàllum transport public. comme ni ma ko waxee euh, ñun daanaka Dakar dem traditionnellement daana ko fi duñ koy feete duñ koy feete xëy na peut-être des fois dañuy def ay journée de sensibilisation rek ci journée bi bu amee donc à travers amicale conducteurs yi ñoom ñooy def avec le président et son de sensibilisation daanaka fa lay yem. mais au compte dafa nekkoon dafa doon nekk un levier bi nga xamante ne moom permettre ñun acteurs Dakar Dem bi yëpp ak les syndicats mën a toog waxtaan def point de presse màggal bés bi aussi mais waxtaan ak état ci jafe-jafe yi xam ne Dakar Dem bi mu ngi ko am depuis vingt-deux ans ci jafe-jafe yi mënul saafara ba tey malheureusement nag loolu amul mais taxut ne kenn ngeen ñu occasion pour wax ci donc moo tax loolu ñu firndeel ne bés bi bés bu am solo la donc donc bés bu am solo la donc euh, ñu leen jaajëfal ci opportunité bi ngeen jox pour wax ci loolu donc euh, loolu la. Euh, tey jii boo ñu doon wax jafe-jafe yi nga xam ni moo am ci secteur u euh, transport public lan la exactement Marc. waaw jafe-jafe yi bëri na lool dans le secteur du transport public déjà mooy problème de matériel bi mooy oto yi déjà ci bëri dafa màgget donc le problème de renouvellement des parcs secteur transport yëpp day posé donc loolu état moo ci war a àddu ñu xool oto yoo xam ne est-ce que respecté nañ norme pour daw tali bi mën a transporter nit ñi souvent yooyu du am nga gis accident yi day bëri donc loolu problème la beneen problème bi mooy aussi de de de sécurité yooyu ay problème moo tax accident dafa bëri trop ci Sénégal nit ñuy dee ci accident de la route dafa bëri lool donc loolu dafa laaj état appelé yëngatu transport yëpp dans le secteur public comme dans secteur privé ñu toog waxtaan uttee solution yoo xam solution yi viable donc euh, bi ci accident bi amoon jamono yële rek mu metti woon trop état jëloon na ay mesures mais daanaka mesures yooyu daanaka fàtte nañ ko donc a suivre évaluer ko mesure yooyu noonu ban njeexital am ci acte transport yi kenn mënu koo wax euh, donc beneen bi mooy dañ ci war a observatoire national bi nga xam dañ ko war tënk acteurs transporteurs di ko waxtaanee ci at bi donc loolu mu doon ñàkk ñàkk na donc il faut que ñu am ay lois yu dëgër yoo xam ne koy jagleel ci transport pour mën a régler le problème du transport parce que transport dafa am solo ci biir dëkk donc yooyu moo fi nekk yoo xam ne daal bu amee daal dina dina dina baax ci ci secteur transport. Euh, léegi euh, Marc Tendeng euh, voilà tey jii kon pour améliorer li nga xamante ni moom mooy wàllum transport public yéen lan ngeen di suggérer exactement état wu Sénégal. la ñuy suivre état Sénégal mu jël euh, transport def ko euh, levier yoo xam ne priorité la ci dëkk bi parce que transport tey dafa nekk loo xam ne comme ni ko waxee moom mooy dundal économie dëkk ci fànn yëpp nag soit transport aérien ferroviaire transport routier donc yooyu dafay baax état dooleel ko jox ko gëddam mais beneen bi aussi état di déglu aussi acteur transport yi di leen impliqué ci politique politique décision yi ñuy jël yi jëm ci mbirum transport parce que souvent day am souvent euh, ay jafe-jafe entre état ak transport yi donc grève aftu yi firndeel na ko euh, donc grève yeneen secteurs yi firndeel na ko donc yooyu dafay baax ñu associé ci loolu donc moo tax ñu ne daal euh, yooyu bu ko defee daal souvent dina mën a permettre voilà secteur transport yi mun a jouer pleinement son rôle au niveau du Sénégal léegi beneen laaj aussi naka nga gisee projet mm, euh, BRT di bus rapide euh, transit naka nga gisee projet bu état wu Sénégal boobu. waaw projet bu baax la ndax état dafa nekk dynamique boo xam ne yaatal secteur transport bi su ko defee mu mën a permettre sénégalais yi fu mu ti nekk daal ñu mën a dem ci diir bu gàtt mais ci sécurité ak confort mais aussi ci ay pass yu yomb donc tey bu ñu gisee état yaatal loolu euh, transport urbain bi. te dakaar Dem Dikk nekkoon fi di ci joué partition aftu ñëwaat encore depuis deux mille cinq doolee ko ci lu acteurs yooyu tey boo indee BRT mu nekk gis à haut niveau de service doole ko ci donc c' est au grand bonheur des populations du Sénégal donc TER bi ñëw en ñëw encore facilité mbir bi donc loolu ciy baax mais yaakaar naa ne BRT boobu ñun yàgg nañ ko wax Dakar Dem Dikk bu ñu ko joxoon mooy gën parce que ñoom li ñuy def ñun moom la ñuy def te tey jii bi ñu gisee lancement BRT bi mu amee gis ngeen seen bus bu dérapé articulé bi ndax moo lay wan ne ñu ngi ko dénk déjà ils n'ont pas suffisamment d'expérience pour pouvoir euh, dérouler le projet ñu ñuy jox ñu dawal kaar yooyu tamit amuñu formation nécessaire bi pour def ko alors ko ñun Dakar dem ne ci yàgg nañ yëngu ci ay bus yoo xam ne ci modèle boobu la ñu koy wax ay bus articulé donc moo lay wan ne daal état daal bu ñu déggoon projet dañu ko doon jox ñu daal di ko ñëwal boole ko ci Dakar dem rek muy def te mu joxaat ni encore mille quatre cent véhicules yu muy diggoon ñu continuer à perpétuer le service public daal sénégalais fu ñu mënti nekk daal ñu mën leen di transporter. Hmm. donc loolu lu baax la daal mais yaakaar naa bu ñu ko joxoon Dakar dem ci daal. si lay doon loo xam ne lu mucc ko sénégalais yëpp mën ko jëriñoo fu ñu euh, fi ñu toll nii seen jafe-jafe yéen liggéey Dakar dem dikk euh, fu ngeen toll seen i jafe-jafe ak négociation avec état wu Sénégal. waaw jafe-jafe yi moom Dakar dem dikk daanaka boobu ba léegi bu ñu ciy ñaxtu ba léegi daanaka dal ci saafara bariwul état mi ñuy dégg chaque fois ñu ñun en tant que syndicaliste ñuy génn di alerter situation Dakar dem bi parce que depuis vingt deux ans ba léegi société bi mënul mënul décoller société bi mënul boo xam ne garantie la pour les salariés yi fi nekk donc te loolu lu koy waral souvent rek mooy état daf fi def xaalis bu doy jox ñu ay bis ñu liggéey mais chaque fois problème de gestion moo am problème entreprise bi moo am ay njeexital ci travailleurs yi tey may wax ak ñoom li ci gën a jàmp mooy

mën a génne ay bus pour sénégalais jox ko foofu jafe-jafe la pour travail bu nekk lu doy waar. benn bi aussi mooy les questions d'ordre social tey wax nañ ci augmentation de salaire yi ñun en tant que sénégalais dox nañ ci àddu ci man sama syndicat wax na ci ndax ñu mën a appliquer la mesure de l'augmentation généralisée des salaires dans secteur privé comme dans le secteur parapublic mais suñu direction ba léegi mënu ci àddu parce que suñu directeur moo une société mu ne moom xamul ñun Dakar yi fan la ñu bokk ndax secteur privé ndax secteur privé kooku c'est un problème kooku kooku waratuñu xalaat kooku naka la ñu ba jox ko société mu koy diriger beneen ay dettes yooyu ba tey mu nekk ay jafe-jafe pour ñun donc ay jafe-jafe la yoo xam ne ni tey jii amul ci ay bus daanaka fu ñu doon amee quatre cent bus ci réseau urbain bi daanaka presque léegi mënuñu ci am sax trente bus yu mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne daal mi ngi menacé eh, Dakar dem bi te tey yi dañu ragal tiit nañ ci avenir Dakar Dem Dikk parce que tey jii Dakar Dem li mu gën a wane mooy tëj la gën a jege te continuer à exister te ñaanuñu mu tëj donc ñun dañu bëgg daal bu ñu yeewoo ñu xam fu ñu jëm te bu ñu mënal ci condition yi Dakar Dem di doxee nii dañuy yeew uti fu ñu jëm ca tàng donc jafe-jafe yi daal bëri depuis vingt deux ans donc ki fi nekk fi nekk tey comme directeur tey jii donc moom doxalinam daal mooy doxalin bi nga xam ne pour faire plaisir Euh, ay mbokkam waa Kédougou bañ ne ba dafa jël réseau urbain interurbain def ko Kédougou bàyyi région yi fi nekk yow nga romb Thiès romb Kaolack romb Diourbel romb Fatick dem ba Kédougou à plus de neuf cent kilomètres dem créé fa réseau urbain alors que Dakar yi bus yow imaginer ñu ne la euh, amuloo génnee trente à quarante bus ci ñaari ci Dakar bi yëpp nga dem bëgg a yóbbu ay bus ne dafa koy def réseau urbain foofu kon kooku xam ne loolu kooku defar taxu ko jóg a jóg pour pour renouveler son son électorat parce que ñoom xam ne li yàlla xam doy na. Euh, euh, Marc Tendeng euh, aussi mhm. kon jafe-jafe yi nga fi lim yëpp lan moo tax seen yëngu yëngali yi taxatu ko demee noonu bareetul daal liñ leen di dégg bareetul. man day wax fa dëgg syndicat bi ma jiite muy union démocrate des travailleurs Dakar Dem Dikk boo vérifié ci journaux yi wala ci ci antenne yi. daanaka jaar naa ci ay rajo yu bëri ma la télévision yu bëri dénoncé situation bi yàggul dara rek def naa benn conférence de presse dénoncé situation boobu mooy agissement directeur général bi agissement direction générale bi ak jafe-jafe yu Dakar Dem Dikk am yoo xam ne bu ci état tegul loxoom daal du sotti donc on a alerté on a am na ñoo xam ne ci nguur ji woon nañ ñëpp wax ñu laaj ñu situation bi jox na leen situation bi yëpp nu mu demee ci Dakar Dem Dikk bu ci des daal mooy état def ci saafara Euh, ba loolu war a mën a àttu jamono yi sax dégg nañ ne peut être suñu direction générale dem réew pour mën a indi ay bus yu bees xëy na suñu jooytu boobu suñu ñaxtu boobu état dégg moo tax état accéléré pour l'arrivée l'arrivée des bus mais ni ñu déggee daal yaakaar na li ñu ci war a am pour mën a démarrer ouverture bi daanaka du bus yu te on nous cent véhicules ci dégg lu ñëw ci bus daal mbari mu ñëw na lool par rapport ak jafe-jafe yi Dakar dem dikk am donc hmm. loolu daal mu ngi fi ñun daal tayuñu parce que UDT Union démocratique des travailleurs académique bi nga xam ne moom laa jiite chaque fois ñu ngi ciy wax te chaque fois bu ñu amee opportunité ñu invité ñu Sénégalais nañ xam réellement lan mooy jafe-jafe yu Dakar Dem Dikk te on a continuer à occuper les plateaux ba état mën a jël des mesures nécessaires pour mu teg koo xam ne euh, yërëm na Dakar Dem Dikk mais na gérer Dakar Dem Dikk ki nga xam ne maîtrise na secteur du transport ba jafe-jafe yëpp nekk ci ginnaaw Mmh. Euh, dernière question euh, Marc Fodé Tendeng euh, déjà ñu ngi wax waxi remaniement dafay am euh, ñu war a daaneel gouvernement bi teg beneen bu bees en tant que sénégalais en tant que syndicaliste en tant que liggéeykat boo xam ne yaa ngi nekk ci fonction publique euh, lan ngay xaar ci gouvernement bu bees boobu ñu war a taxawal nga xam ni moo fi nekk ba euh, ñu am njiitu réew bu bees loo ciy xaar. waaw question question bu am solo mais dama ko répondre en tant que sénégalais lambda. Mhm. parce que daanaka euh, ñoom dañu promettre woon bu ñu indiwaatee poste premier ministre bi nañu dinañ dem ci gouvernement d' action gouvernement de de combat ndax ñoom gis nañu jafe-jafe saafara sénégalais yi wane nañ ko ci mbedd yi ak fépp wane nañu Sénégal doxut dund bi seer na sénégalais yi vraiment ci njàqare lañ nekk ci tiitaange sur des questions de sécurité ak sur le plan social. donc ñoom ñu état ne woon daf ci indi ay saafara mais daanaka bu premier ministre ñëwaatee ba léegi jafe-jafe yi léegi la a tar donc bi demee tey ba six mois ñu ne nguur gi si day jeexal Macky Sall ne dootu présenté wu donc bu ñu bëggee def ay remaniement nit ki yaakaaruma mun na fi def loo xam ci six mois loo xam ne dafa ko ci at yi ñu weesu yi lépp bon ñun fu ñu sañoon daal mooy ñu nekk dans la continuité wu concentré wu ci préoccupation de sénégalais moo ñu gënoon amal solo donc remaniement dafa mel ni rek bon séddale rek ñu ñamaloon la ñuy ñamal balaa nguur gi di jeex donc xëy na yooyu la te aussi remaniement bi li ko gën a li ko gën a indi gis ngeen ko peut xëy na nga xam ne dañ nekkoon ànd ak PDS ku jël beneen yoon moo am ay sanction tegu seen kaw lii am mais daal li gën a am important mooy le ma Macky Sall mën a yeggali mission bi ci jàmm ak salaam comme ni mu ko defee donc entouré wu des zones de confiance de mën a régler problème sénégalais yi secteur transport moom ku ñu ko dénk mooy Mansour Faye di ko ñaan rek di ko ñaax comme nu ñu ko defee ci à travers nos points de presse di ko wax ne bi suñu diggoon daal mille quatre cent dañu ñëwoon ko gis moom ba ci ministère foofu di waxtaan ak moom dañ def jéego di mën a jot bus yooyu dans la totalité ñu mën a continuer à bénéficier les services publics yaakaar naa loolu moo nekk suñu préoccupation majeure te nekk préoccupation sénégalais. voilà Marc Fodé Tendeng ñu ngi lay remercier bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. voilà ñuy fàttali yow yaay secrétaire général bu union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk merci euh, Marc Fodé. jërë ngeen jëf jëf pour antenne